Nous, avons ñaan président Macky Sall nous à deux ambassades de respecter la souveraineté du Sénégal mu di ambassade du Hollande et ambassade du Canada ambassade du Canada la avons def ñu ngi votre dénoncé waat créer le fonds canadien d'initiative locale ba avons ben def benn communiqué ko xam ne ko homosexuels neuf kuréel yoo xam ne état comme les de quartier mu communiqué par hasard ñun ñu jot ko lan la wax ambassade du Canada dans le cadre du fonds canadien d'initiative locale ku ci indi projet financé c'est dangereux c'est un signal fort est dangereux qui veut dire indirectement aux jeunes que ku bëggati facilité pour visa wala facilité pour mën am financement boo que góor jigéen ci lay gën a loolu dénoncé deuxième ambassade bi le président Macky Sall na pas c'est l'ambassade de Hollande ambassade de Hollande fekki ngeen ko barka démb fondation Conrad Adenauer Hassan euh, Dioma Ndiaye bu ONDH moo fa woote woon ñun nañu Tembi, c'était euh, les conditions de détention dans les prisons ni ñuy les prisonniers C'est ce que doon thème Tembi. Mais yow ambassade Hollande nga dañ la invité rek les paroles, waxal ci Tembi. mais dafa détourner Tembi. Dal di wax wa ONDH ne ñun un budget pour qu'on accepter de porter le plaidoyer pour la finalité de légalisation de l'homosexualité nous devons financer l'homme ndax Macky Sall wax ñaari ambassade yoy nañu bayyi ces messages pernicieux et maçonniques yu ñuy véhiculer dans la cité sénégalaise di détourner jeunes yi ba jeune yu bari japp nañu né ku bëgg visa wala financement fokk ne ko góor jigéen ñaari ambassade yoy na leen yalla na leen Macky Sall